dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy ci contrat bi nga xam ne ay weer a ngi nii ñu koy jàbbaa jónge ci réew mi muy contrat bi dox diggante Senelec ak ak li jëm ci wàllum compteur contrat boobee dix ans la contrat boobee cent quatre-vingt-sept milliards la syndicaliste yi nga xam ne ñoo nekk Senelec ñu ëpp sa ñoom maanaam ñoo ngi ñaxtu ngir ñu dakkal boobale contrat njiitu réew mi di président Macky Sall daal dinay dugg ca boobale contrat ba pare daal di wax ñu daal di koy dakkal yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy na ñëw ci détail yéen kaay gi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall yàgg naa suivre li nga xam ne mooy dossier bi maanaam waxtu wi si boppam moo jotutoon te ba léegi enquête beek investigation yi ñoo ngi wéy di ko amal ci kër gii di Senelec maître ma soxna kan ci biir journal bi la mu xamle nee na contrat bi dox diggante Senelec ak ak da ko doon dégg rek waaye keroo bi nga xamante ni wan nañ ko ko mu daal di koy liir ci ay bëtëm maanaam keroog dafa waaru keroog dafa jommi ndax musul liir contrat bu doy waaree noone contrat boo xam ne maanaam ay léexóor ki njaaxum rek moo ca ne Senelec maître ma soxna kan daa di wax ñi nga xam ne ñooy waa Senelec dañoo commandé lu toll ci deux millions sept cent compteurs waa Akili waa Akili nag ci deux mille dix neuf bi waroon nañoo joxe lu toll ci deux cent cinquante six mille compteurs waaye deux mille compteurs kese rek dong la ñu joxe maître ma soxna kan ne mbir mi en tout cas la ca làqu daal nay doy mi nga xam ne Senelec lay liggéeyee jiite syndicat bii du Sutelec la mu xam leen nee Akili ci boppam amul xaalis te ñi nga xam ne ñooy waa Senelec ñoo ko bi Aïdara ne wax ji sax mooy Akilee amul ab personnel boo xam ne maanaam dina ko mën a tegal ay compteur yéen a kaay gii di Les Échos mu ñu xamal na ñu en tout cas li am ba des mooy du contrat Akilee bi rek mooy contrat bu doy waar ci Senelec ndax bëri na fa ay contrat yoo xam ne la ca nekk ci ay léexóore ki njaaxuma ki tojange maanaam nañu ko nëbbu askanu Sénégal yéen a kaay gii di L'As mu ñu xamal na ñu njiitu réew mi di président Macky Sall lijjanti na mbir mi moom nag defal na ay ñi nga xam ne ñooy waa Akilee jamono ji maanaam Akilee ñoo yor seen cëgul guyi ndax la nga xam ne moom la leen Macky Sall wax mooy la mu bëgg mooy ak li jamono ji nekk moomeelu Senelec njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag bu ngeen ci àndul maanaam tribunaux yi ma ngi ne mën nañu ko àttee ci réew mi mën nañu ko àttee ji maanaam ca Paris la France yéen a kaay gii de Libération xëy ñu xamal la ñu Lamine mi nga xam ne moo jiite woon ay jamono IAAF e ñoo ngi koy àttee ca Paris la France waaye nag maître Habib Cissé mi nga xam ne moo nekkoon yoo xam ne moo ca nekk doy na waar mail ya doy na waar virement ya tamit doy na waar en tout cas lépp bàyyi na ay traces yoo xam ne loole nag maanaam bu ci waa yoon sukkandiko Lamine Diack ngir mu mucc lu day waar lay doon journal bi nee na Lamine Diack moo nekkoon bayeeru opposition bi diggante 2019 ba 2012 maanaam moo doon financé ku jigi te jamono ji maanaam dañu ko seetaan dafa wéet ci xeex bi yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu dikk ci covid 19 bi ak cas importé yi nga xam ne commencé waat na ñëw ci réew mi yéen kaay gii di laas na cas yi jamono jamono ji war nañu ko lijjanti nee nañu aéroport lay jugee réew mi quotidien nee na vol spéciaux yi nga xam ne dañu leen a autorisé ñoo koy indi ci réew mi yéen a kaay gii di libération mu ñu xamal laan ñu ñeenti fan am na lu toll si juróomi téeméer ak fanweer ak ñett ci yoo xamante ni daat nañuy wér yéen a kaay gii di vox populi mu ne malade yi lu ñu wér-wér te plage yi xale yi dafa jaaba jonge jàngoro ji day gën a nekk ci réew mi loolee docteur yi ak ñi seen xel ma ci jëm ci wàll wi ñoo ko xamle yéen a kaay gi daat nay xëy ci mer mu rëy mi nga xam ne école privée yi nekk ci réew Sénégal Sénégal daal di nañ koy mer maanaam daal di nañuy gedd milliard bi nga xam ne Macky Sall jox na leen ko ndax ñoom école privée yi nee nañu munuñoo nekk lu toll ci deux mille huit cent trente cinq école privée ci réew mi ñu leen di jox benn milliard xam ne bu buñ ko séddoo maanaam kenn ku nekk trois cent cinquante mille francs keser ngay am ci ñeenti weer yoo xamante ni école privée yi am nañu ay jafe-jafe yu métte métte docteur Babacar Niang mi nga xam ne mooy directeur suma assistance ñëw na ci wax lu dul dëgg gi nga xam ne ñoo ngi koy def ci Covid 19 bi ak ñi nga xam ne maanaam ñoo ngi siy def ay business wut ci xaalis neexul ba neexul waaye tojaange yi am ci réew mi daat nay bëri yéen a kaay gii di Les mu daal di xëy dikk ci travaux aménagement corniche ouest yi nga xam ne maanaam Abdou Karim Fofana ab marché la boo xam ne daf ko jox benn entreprise française te amul appel d'offre marché boobee toll na ci dix-huit milliards waaye nag waa ARMP dañoo xool ne ay luqu njuur ma nga sa ñu daal di koy dakkal yéen a kaay gii di Le Soleil mu ñu xamal naa ñu njiitu réew président Macky Sall daat nay tëj Sénégal jamono ji daat nañuy dakkal lépp loo xam ne jëm na nag ci wàllum napp gi bateau étranger yi maanaam licence de pêche ci boppam jamono ci maanaam moom la ñu dakkal yéen a kaay gii di Sud Quotidien daan nay xëy ci suuf si ci ndakaaru ak ni nga xam ne maanaam moom la ñu koy saax-saaxee ak jafe-jafe yi nga xam ne maanaam moom la mën a indil askan wi yéen a di enquête mu xëy dikk ci littoral bekk ni nga xam ne moom la koy jëfandikoo journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo si sëgg maanaam nekk ca dina jafe lool ñu daal di cay deltu ginnaaw yéen a kaay gii di l'observateur xëy ci mbiri Luc Nicolaï mi nga xam ne moom lañ doon tuumal ay looxóori ki njaaxuma ki tojaange jëm ci mbirum drogue ñu jël ko dugal ko si kasu bi bi diiwaanu Saint-Louis jamono ji andi nañ ko Thiès waaye nag dafa daal di door ab gréewu xiifala la nga xam ne moo ko naqari lan moo tax mu ñaan ab liberté provisoire ñu daal di kakay lànkal ba pare may ko Seydina Fall Bougazelli mi nga xam ne maanaam moo tim ci ay tojaangay faux billets la ñu ko tege woon loxo journal bi di record mu ñu xamal lan ñu Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne moo nekk Paris Saint-Germain soo muy tuulee ci damu ban Paris Saint-Germain bi fa la jëm ndax Paris jamono ji ñoo ngi wut benn joueur boo xamante ni xale bu ndaw la ab militaire la xarañ bis maanaam gànn géy moom dootul mën a footballati yéen a kaay gii di sunu làmb xëy ci Balla Gaye numéro 2 mi nga xamante ni moo ay si ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne musuñoo daanu Balla Gaye 2 moo ay si ñooma maam góor Diouf bañu ko fi wax Balla daf koo daane ak ki nga xam ne mooy bàcci seeraas ba si fay muudulu ak yaxe jóob yëkki ni